te foog naa ne tey booy defante dafay fekk nga am jot booy defante dafay fekk nga am jot parce que man foog naa amatuma jot bu bëri pour defante yàlla mi ma tiim xam na loolu sama yaay bi fi toog wala samay frère samay sœur xam nañ loolu ñoo lay gën a xam ne neex na ñu ne la neexul xamoo dara ñoo lay gën a xam ne li nga sol rafet na ñu ne la rafetul man dama leen bëgg artiste Sénégal yëpp amul kenn koo xamante ne mën naa ne bañ naa ak kenn ku ma bañ ñoom ñëpp dama leen a bëgg te xëy na du lu ñuy kii nii mënuma nekk di ko wax wala ñuy foog ne day kii nii day kii nii mais jàppaluma ci kenn dara yéene naa ñoom ñëpp ñu am rëy waaw donc euh, xëy na am na lu mënul ñàkk nag ay détails du ñàkk mais yàlla xam mi ma na ne taluma détail ne dootuma ci waxaat loolu tey wax naa ko Sénégal yëpp dégg ko tax taluma ko amatuma jot jot bi laa am waaw merci beaucoup